parce que soo xoolee de 1960 à nos jours politique politicien rek moo fi nekkoon moom moo ñu tardé amuñu benn réel politique boo xam ne nii c' est un projet sociétal. imaam moom la dem moom la démarré woon saak bi. waaw est un projet sociétal bien fait. su mhm. fee am. loo fi gis politique politicien moo fi am moo ñu tardé nag gis naa après Senghor Abdou dafa ñëw xuppalee pro Senghor teg kër yi gars yi rangé si côté am Abdoulaye di ñëw en 2000 mu ñëw. la reddition des comptes. su ma jumul Mbaye Ndiaye la fi jàpp xamoon kan ka dëkk Thiès. Mbaye Diouf Mbaye Diouf képp la fi jàppoon. non moom képp la fi jàppoon. gars yi ñëw social parti socialiste daanaka tas. Mhm. ñëpp nekk ay libéraux. waaw yi transhumé créé cap 21. gars yi transhumé. mu ne teg nekk fii 12 ans Macky ñëw indi fii. CREI yi CREI yi. dekkal ko ah, waaw loo xam ne 1983 la ko Abdou ci bàyyi woon mu dekkal ko. indi fi liste vingt six personnes mu ne lii demande sociale la vingt six personnes kan la fi jàpp Karim Wade képp la fi jàpp te bu ngeen fàtte ñoom Ablaye Balde ñoom Omar Sarr ñoom Ousmane Ngom ñoom Samir Sarr ñoom ñëpp ñu ngi ci si kër yi. liste vingt cinq personnes. Aline Ndaw Aline moo ko wax la procureur Aline Ndaw moo ko wax moo ne bi mu bëgg a demee jusqu'au bout de sa logique. Mhm. Macky Sall dafa téye loxoom mu bañ Macky Sall dàqal ko. en mhm. plein audience la ko dàqee. Aline Ndaw jabaram moo ko wax soxna Zeyda moo wax ne ko dàq nañ la. yëgu ko sax loolu mu am ci réew mi ñu dem ba Ousmane Ngom xam ne sous contrôle judiciaire la nekkoon Sénégal dañuy fàtte li fi Macky Sall def ci xeetu mbon nee naa la prix Nobel de mbon su doon am moo ko jël. Hmm. Ousmane Ngom def na ko sous contrôle judiciaire xam ne mënut a génne territoire sénégalaise Macky Sall yàpp ko ci avion bi yóbbu ko Guinée. waaw ah Macky Sall grâce na fi koo xam ne nii crime la def. mooy waaye lu wuri jàlloo mi demoon affaire médicament yi. ak faux billet lu ne bari xaw na fi. Hmm. ñi ñu doon jàpp tey wala ñi ñu doon jàpp dem en 2012 ñi ñu doon traqué dem nañ ba ñu ba ba nekk conseil des ministres Omar Sarr nekk na fi ministre. Mhm. Samuel Sarr et tant d'autres. kon nag léegi justice boo xam ne nii boobu lañ bëgg ñun dindi ko fi mooy la justice des vainqueurs ñu bëgg fee instaurer un état droit loolu moo tax suñu projet sociétal bi dañ ne un Sénégal de tous le Séné euh, un un Sénégal de tous et le Sénégal. ko mu damay waxee. pour tous waaw le Sénégal de. xawma nu ko pour waaw le Sénégal pour pour tous ah. noonu la ko jamaay mais Diop mais Diop na quand mu ngi bëgg a yàgg quand même léegi xaaral ma rek léegi nag soo xoolee yow li fi ab Diouf def Abdoulaye def ko fi ab euh, Macky Sall def ko fi ñu ñu ñëw dañ koy def mooy fayantoo tëj nit te indi preuve bu concret loolu yi lañ ne moo fi bëgg a jeex léegi pour jeex xam nga mooy hmm. ñun créé yu dara lu bees lépp Macky Sall moo ko fi wàcc wala Senghor moo ko fi wàcc wala Abdoulaye moo ko fi wàcc wala Abdou Diouf moo dama la jox exemple rek inspection générale d'état ay rapport yaa nga fa. Mhm. defuñ ko de. Mhm. OFNAC Macky Sall moo doon jeune protéger personne wax ñett yoon. mu ne la CREI est faite pour l'ancien régime. Mhm. mais l'OFNAC est faite pour nous et jeune protéger personne wax ñetti yoon. rapport OFNAC Seydou Ndiaye jax ba muy dem nee na bàyyi na fa 24. nee na Bassirou Gueye bàyyi naa la 24 rapport man sama maire bi nekk Taïf ci la bokk OFNAC da ko épinglé en ana du yi Macky Sall moom moo wax ci turam. ci làmmiñam bokk daan ne rapport yu bari maa ko teg sama loxo maa ci teg sama. sama conc waaye léegi nag rapport yooyu la Diomaye yëkkatiwaat rek. waaw jeex na. Sénégalais yi waxuñu yëkkati ko ci bëgg si. Sénégalais dañ ne mu ciy xaar bàyyi maa gële bàyyi maa gële nga xoolal IGE. IGF. OFNAC yooyu yëpp Sall lui-même lenn ni moo ko li moo ko digle ñu def ko mais léegi nag rapport yooyu lañ jël càmbar ko. xam nga Sénégal dañoo yàgg parce que li fi li fi jaar moo métti yàgg. Hmm. léegi nag loolu lañ jël jox pro procureur léegi nag procureur ni muy def man mooy day auto-saisiru woo leen enquête leen su waree jàpp mu jàpp leen suñu mënee fay mu fay suñu mënta fay ñu yóbbu leen kese. Euh, moo moo gay nee na borom numéro 9 bu ñu doon gis ci manifestation bi. Euh. toog di xalaat ne mu ngi mu ngi doxantu rek. Euh. jar naa bañ a nelaw. mais gis nga parc Fira am na. su bu parquet financier aussi Macky Sall moo ko fi créé bu ñu ko fàttee. waaw mais bu ñu ko créé pare xam nga xëpp la c'est-à-dire daal eh, ci man soo ñëwee ci man rapport yaa ngi dama ko jox procureur ñu tëj la nga ñëw fekkee amoo benn benn litige wala amoo benn détournement de deniers publics mu yëkkati ay milliards jox la nga dikk ci moom loolu képp loon def parquet financier bi Macky Sall bu moo ko créé. Hmm. mais ko créé pare indi fa benn magistrat. Hmm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo fa installé ay magistrats. kon incha allah bi parquet financier jox nañu ay dossiers. te si fan yi ay ci ay ay heures laa wax du ay fan mais ay heures dëgg-dëgg ay nit ñu convoqué mais nag président Ousmane ko wax na leer. nee na ñu soxluñ tëj nit. mais xaalis Sénégal moom képp ko lekk na ko wax. parce que tëj ñi amul njariñ. tëj nit amul njariñ amul njariñ. fekk mën nañoo fay nañ fay suñu xaalis. mu delloo xaalis bi moo gën a wóor. mu delloo xaalis moo parce que li am moo bëri. Ah. ana 1000 milliards Covid. waaw ana yi. yaa ngi dégg léegi barki démb Lamine Yamal. Mm-hmm. Lamine Yamal nee na mooy le directeur de l'ASER le jeune directeur de l'ASER. Mm-hmm. nee na Seydou Kane la yaakaar su ma juumul. mooy borom entreprise AEP au Sénégal. waaw surfacturation benn porte lampe bu jël deux cent mille mu def ko un million. surfacture à plus de quinze milliards trois cent et quelques millions sur surfacturation loolu dafa extrême. Mm-hmm. nga ñëw ci aéroport. seen communication képp convention yi ñu signé woon presque un milliard quelque nga ñëw Lonase un milliard quelque nga ñëw ministre des soo mhm. soxna si daan moom sept milliards yi xam dañ ko footoon pour compétition au niveau yi. Mhm. bi mu fi ñëwee sept cent vingt franc la fekk nga ñëw kuddu ñu ne la am na benn gardien ku yor sé ku xam ne sécurité bi la bokk di fay un million quelque. Mhm. c'est que nga dem caisse de dépôt et de consignation c'est-à-dire am ku fi jënd kilo ñebe quatre mille et c'est que loolu moom mooy problème mu yi loolu nit nu mu ko mën a imaginer di ko def askan woo xam ne dañ leen di wóoru fal leen pour ngeen nekk seen i bànnee nekk seen bëgg-bëgg. Mhm. ñoom tey askan woowu nan lañ leen di xoolaatee. Mhm. léegi nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa wax ne xaalis boobu dañ ko indiwaat. alors je reprends la question <laughs> je reprends de Mo mhm. ah, parce que nee na posé wu ko noonu nee na euh, ana boroom numéro 9 bi. nee na ça fait 6 mois ngi nii kenn waxul ci affaire yooyu donc nee na moom mu ngi commencé di am ay doute ci régime bi. loolu la moo géey wax kan moo géey mu ne mu ne dafa am ay dut daal ne borom numéro 9 bi fan la nekk ba numéro 9 six mois ngi nii mooy ci émeute yi waa mais xam nga gis nga dama lay wax six mois ngi nii dama dama wax ne gis nga dama lay wax Massamba hmm. gis nga on pas danser plus vite que la musique hmm. fekkee tooñ rek tooñ ak xeex ba projet bi agsi fii tey ma agsi hmm. président Ousmane Sonko mooy premier victime bi loolu na ko Sénégal xam bu baax a baax moom lañ tëj këram presque cinquante et quelques jours. moo fi grève de la faim. sonn lool ba nekk ci digg dund ak dee moom lañ fi xañ leneen ak leneen leen dàq ko liggéeykaayam lu baree baree bari ñu teg ko te pourtant c'est le porteur du projet te pourtant mënoon naa abandonné abandonné wu. nga ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye président boo xam ne prison lu jógee dem pale ñu teg ko lu diis lu métti. kasaalika centaine de jeunes yoo xam ne nii ñii jaay nañ leen doole soit amputé nañ seen tànk soit rey nañ leen soit ñàkk nañ benn cër soit ñàkk nañ seen liggéey seen kër tas na et tant ñu koy dund ñooñu damaa jàpp ne ku leen gën a yàkkamti waru leen gën a yàkkamti hmm. chaque chose nag en son temps ah, gis na mbir hmm. mënoo ko jiital kilifa mënoo ko jiital pare bëgg koo gën a yàkkamti gis nga président Ousmane Sonko man damaa gëm ne la sëñ Mbacké Sow la waxoon waa Taïf benn ziar bokk ci dernier ziar yi ñu ko waa Taïf hmm. moom laa wax bépp patriote mooy ku yàkkamti ak ku gis nga projet passé bii képp ku yàkkat ak ku ñaan jot doo fekkee dara parce que yàkkat ak ñaan jot du doxalin jullit ku am iman dëgg-dëgg da ngay xaar ndogalu yàlla da koy nangu lépp loo gis day am temps président Ousmane Sonko moo leen gën a yàkkantu fopp installé une justice équitable te lu jot danañ ko def lu jot yomb imam loolu da juri yàkkamti reddition des comptes sénégalais yi ñu ngi commencé quand di. Euh, déet bul ne sénégalais yi boo ne sénégalais ah. rek da ngay bëgg a maas nuun gi. non da waxuma sénégalais yëpp mais quand même. na ci. ay sénégalais. du sénégalais sax opposant yi la rek. non pas opposant yi. opposant yi la. waaw déglu rek ma yeggal sama ay opposant lañu. waaw déglu rek ma yegg sama question man personnellement. waaw du ma opposant du ma pro. waaw mais bokk naa ci ñi nga xam ne tey bu ma sañoon. waaw quand ñu gis un début. ci reddition des comptes. mais mais un débit. waaw mënta weesu parce que quand même annoncé nañ. des comptes balaa nga koy def sàmb. Mhm. da ngay xool turu yi nga xamante ni moo fàtt. parce que tey jii bu ñu toogoon weer dee. Mhm. fay ñu salaire. Mhm. sàmb dana métti de. bu ñu toogoon tey justice bi di demee nam daan demee. sàmb day métti de. mais il faut ñu am lu ñu régler. ci ngeen nekk jàkka wala juma wala lu mënti doon wala école. balaa nga koy mën a taxawal. foog mu am nag wax dëgg yàlla. miir miir boo xamante ne ay kenn. kenn ay kenn yoo xamante ni ñoo ko téye. Mhm. mais bu amul du sotti naka lañu mën a téye am réew ñëw rek tey nga fekk ne yow budget bi nga xamante ni moom lañ war a jëfandikoo ci at mi dem na ba bu doon bu doon dañ ko def ñetti milliards daanaka consommé nañ deux milliards yi. Mhm. nga bëgg a ñëw nag nekk di regle naan milliards yooyu fan ngeen ko dugal ba pare. ñuy soog a seet économie réew mi nan lañ koy régler su boobaa xam nga lu nit ñi di daw di jox dootuñu wax sax problème mu réduction des comptes problème mu lu ñu lekk ak lu ñu leen di fay salaire la ñuy taxaw mm-hmm. donc kon mbir mu nekk dafa am un deux trois ba egg ci sax effet d'annonce yi quand même moo moo tax sénégalais yàkkamti parce que waaw mais gis nga li ma xam man démb rek est-ce que xam nga ni démb waaw wala boog ki démb affaire affaire pèlerinage bi mm-hmm. bi dañ ko doon audité ki démb lay soog a pare pèlerinage benn bi. bii